waxtaan bi kum toogaanu ñaxtu bi ku jéggi naroon na xamal ni ki tey xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke sàkku na ci ñoom ñu bàyyi ko ñu ne ko sang bi defal nañ la ko vox populi moo ñu xamal ne tànki jàmm la xalifa bi dox seen diggante ba fitna ji naroon a am Sénégal ni ki tey yëf ya mujj dakk ah, yaw seetal xam nga fa ñoo waxoon ne fa ñu xamal toogaanu ñaxtu ca place de l'Obélisque ngir ñaawlu teg loxo gi ñuy teg loxo militant Pastef yi ñi nga xam ne fa ñu bokkoon ci doxu ñaxtu yi ba pare tamit doon sàkku ci ñu bàyyi ñu ñu jàpp ci kaso gi te loolu ñu bëggoon a def toogaanu ñaxtu bi état bi fa bañ ba tëdd ci naaju na du fi amee léegi nag su gaa ñi demoon tey su ko defee jàppante mooy amaa réew mu yëngatuwaat fitna jóg bakkani rotote fi dëkk bi tàkkati ba xalifa bi na leen lu dul jàmm jàmm ko gën Sud Quotidien ne doxu ñaxtu boobu biir Sénégal yépp lañ ko bëggoon a amal ñoom waa M2D a kalaate fay na ndawam ñu dem gisee ak Ousmane Sonko ñoom Aïda Mbodj ñoom ñoom ñëpp a fa woon ci leen leen wax ya xalifa bi sàkku ci ñoom critique yéen kaay ne yëf kay fi nii aw na yoonu jeex le quotidien yéen a kaay ne ndigal daal ba léegi mu ngi dox Sénégal waa M2D maanaam ku jégi war nañ xalifa général na ko ñun dañuy déggal suñu kilifa diine yi ndax xamuñu lu dul ñoom kon li ñu ñaan danañ la ko nangul waaye nag sàng bi mbàkke fañ lay jox ay tomb yoo xam ne mooy suñu naqar te mooy suñu xeex te mu lañ bëgg makki def bokk na ca benn ñi nga xam ne fañ leen a jàpp tëj leen kaso ñoom Assane Diouf ba ci ndaw yiñ mujj a jàpp nga xam ne ay téeméeri téeméer lañ ñoom ñëpp nañ leen bàyyi ñu génn ci kaso gi ñaar teg loxo gi ñu teg loxo di lukkat rëbb ay nit ba ci seen biir di leen jàpp fa war a dakk ñett Ousmane Sonko mboolem topp guñ ko doon topp nañ ko neenal mu jeex ñeent Macky na organiser élection locale maire yi ci nu mu a gaawee ci at mii déwén ñu amal wote député yi ñu amal wote njiiti réew mi te moom Macky ci boppam na wax lu leer ne du ci bokk 2024 troisième kenn du ko may ñi nga xam ne nag la xalifa bi yebaloon na leen waaye bu ko defut de danañ tàngalaat de lay leer li leer direct news ba wax ko mooy ne xalif général des mourides kenn la yebalut ca ku jëga bun Abdallah Jonn moo nekk ci gannaaw li yëpp moo ko dox ay pexe source ay yéen a kaay mel ni ko naan ko du a la déet dafa mel ne a génn jox ko Touba Touba nangu source ay yéen na ko ak lu mu ci mënti doon daal waa MDD proposé nañ Touba disposé ñu ngi ruumandaat nag gouvernement boo xam ne fànn yu bëri ci askan fañ ciy bokk ña ngay tudd sax ma dikke ñang Diop ne a Serigne Mbacke Ndiaye bi fi nekkoon ministre jamono Ablaye Wade nee na Macky war a def mooy fexe ba ndaw yi nga xam ne fañ ko wan ginnaaw wóolootuñ ko ñu jubluwaat ko kàddoom yaa ci lii yéene kaay libération moom di ñu xamal na capitaine Oumar Touré sandarma bi yoroon ñoom Adji Sarr ak Ahmed Mbaye ginnaaw bu mu tojee kaas yi wax dëgg gi leeral lépp ba Sénégalais yépp xam ne lii daal complot tappale yàq der Ousmane Sonko lañ ci jublu léegi ba a xaar ci ay fay toog suñ paree door lijjanti yëf yi source a yéen a kaay capitaine Touré ay daan ci wàllu yar moo koy xaar bi mu yeggee nag trois heures ca caserne Samba Jëri Jàllo ba fa dem gis ay kilifam gars na ko ñun yow doon xaar mu maa ngi ba tey yéen bi di ñu xamal na juróom fukki sandarma am nañ ay gaañu-gaañu ci fitna ji fi amoon juróom-ñaar ca ñoom nag seen gaañu-gaañu fa métti lool l'observateur moom di ñu xamal na ko fi Macky Sall njiiti réew mi rek moo ko mën a baxal ñi ñu warta baxal nag mooy ñi nga xam ne ñoo ray xale yi moo xam takki dara wala ku munti doon yoon fa war a def liggéeyam ñu teg leen ay daan Seydi Gassama Amnesty International moo ko wax ci wal Fadjri yéene kaay ñu ne déetawaay nee na takk der yi am na ñu ñëw wax leen ne fañ doon toroxal torturer bundu xatal méttital loo xam ne kenn du ko def nit moom lañ def ñu tegoon loxo te loolu fa ñaaw n na nag yoon Sénégal seen liggéey ñoom fa ñuy dem bitim réew kalaame fa réewum Sénégal makki ndax lii fa am fa ñaaw laneen lu mu ñaaw lu moom kaay bi mooy fukki doomu aadama faatu diggante état bi nguur gi ak ku jegi ñoom fañ doon wujje dëjee ku nekk naan tey laay dëjal ci naan ko man suba laay dëjal mel fañ koy xëccoo Human Rights Watch ñoom ña sàkku ñu amal enquête ci ñi nga xam ne fañ leen a rey ñi leen rey nañ leen teg daan nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne ñàkk yu bees yi ñëw Sénégal ñu di ko wax AstraZeneca am na ñoo xam ne nee nañ baaxut de waaw waaw fa nga koy ñàkku au lieu nga tane boo moytu fa lay rey jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gi-yaram Abdoulaye Diouf Sarr ku ko wax fa ngay la neex ñàkk yu bees yi la ñun duñ jox suñu askan lu koy lor kàddam yaa ngi ci Sénégal ñaar fukk ak juróomi junney doos ci vaccin boobu ñu wax AstraZeneca si du quotidien mais en cas gis nga ñàkk boobu réew yu bëri yu ko doon fajoo doon ko ñàkkee corona bi fi mu toll ne fañ koo dakkal arrêté ndax fa ñoo seetlu ku ko ñàkku rek fa am lu muy def sa yaram wi li mu def démb nag moom corona bi mooy rayaat na fukki nit Sénégal ba tey yéene kaay bi moo ñu ko xamal tàggat yaram jongante qualification Coupe d'Afrique Sénégal Congo ak yi nekk fii ci réew mi locaux yi ñoo koy football de ah Gana Gueye na ko bàyyi Sadio Mané wóorul ndax Liverpool dana ko bàyyi ndax ñoom ñëpp corona bi la ñuy daw moo yi kon na ko gaa ñi jéngu rek stade yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom sunu làmb yéen a kaay mooy làmb ji sàjji waat na supporters yi mën nañoo dem ci stade yi mën nañoo tëgg léegi combat yi jëwriñ ji di Matar Ba moo ko xamle yéen a kaay bi na ko yow sowe nga saison bi ñeneen ñu soxla ñu sowe leen ndax seen bakkan na nga ca diggante dund ak dee mooy juróom-ñetti doomu aadama yu am gaañu-gaañu yu métti ci accident bi am niki démb ci autoroute à péage ba si du quotidien na ñetti doomu aadama ñàkk nañ ca seen bakkan ndeysaan waa ma ne cay xaw ma kañ lay jeex Sénégal man faa foogoon ne daal buñ na accident tali bu def ay kàmbu pax wala rang-rang waaye autoroute à péage ci accident ah fàtte naa Sénégal lañ nekk